man man la Baye Mbacke Ama donc euh, candidat laa fi ci centre Fallou Gallas. Eh, tey eh. sànq def nga lii di épreuve euh, philosophie ndax mën nga ñëwaat waa li ngeen def tey. waaw tey philosophie ñetti sujet moo génn domaine 1 la réflexion philosophique. Euh, domaine 3, domaine, domaine 3 l'art et l'esthétique. Donc du coup, on a associé l'art et, et, le savant. Bon, si je me suis sincèrement parlant, mais d'après les magis, on a mettre dans mais ça va rester abordable. Ouais, ça fait même sincèrement. Harnon le goût moins difficile quoi. Les professeurs dans les salles. Exactement, dans les petites classes sincèrement. On a tout fait dans les petites classes. Vous d'ailleurs en personne, man sujet, man sujet 1, domaine domaine la réflexion philosophique. léegi ndax na mi par exemple distanciation sociale ndax yéen a ngi respecté ci biir salle de classe yi. bon si biir cas si voilà on a on a on a des gels et tout le monde am nañ ay gel et ku nekk aussi takk na masque am voilà et mesure bari aussi on a a respecté cela. Euh, maa ngi tudd Rokhaya Faye élève en classe de terminale L2C école privée Fallou Galass. xam nañ ni élèves moom dañoo am stress stress bi mun fee jóge philosophie bi ça a été abordable dëgg yàlla Il y avait aussi les surveillants qui nous ont rassurés, tout ça, en disant que ce sont seulement des épreuves, rien de plus, dalal nañ xel yi bu baax. loolu la ñu gën a motiver nga xam ne ba ñëwee nekkuñ fi di paniquer genre dañoo ñëw comme si on faisait la composition bien des devoirs en classe. Euh, sujet numéro un rapport avec euh, la philosophie la philosophie réflexion philosophique domaine 1 euh, le sujet numéro c'était l'art l'esthétique. Et le sujet numéro 3, c'était un commentaire avec la liberté. Bon, j'ai choisi le sujet numéro 2 qui était l'art, l'esthétique. waaw sujet bi daal ni ma ko mën a waxee booy ba ma xoolee sujet yi moo ci gënoon abordable à ma faveur moo moo ma ci gënal j'ai pris le temps de lire de bien lire les trois sujets lire na bu baax ñetti sujets yi mais sujet numéro 2 bi daal la laa gën a sentir si la gën a gis sama bopp en plus j'ai appris les leçons leçons boobu jàng naa ko donc du métti man pour ma def sujet bi bon on a eu à traiter des épreuves épreuves yi ah épreuves yi yomb na traité nañ ko si jàmm xam nga. bien vrai que xa xaaroon nañ xaaroon nañ yu xaaroon nañ lu gën a lu gën lu gën a difficile lu gën a lu gën a jafe mais ñun daal li ñu li ñu traité ñu gis nañ ni daal c'était abordable franchement yomb na waaw franchement on a eu à am nañ am nañ yaakaar ni que dina baax incha allah. bon man nag xam nga dama bëgg aar. je suis donc mën traité naa traité naa traité naa deuxième sujet bi xam nga dañu bi ñu doon wax ci art ah, art kii dañ koy comparer ak savant yi aar nga xam ni aar moo am lépp solo si àddina bi. malgré Covid 19 bi bien vrai que njàng bi xawoon na perturbé wu tu vois donc mais quand même n'empêche on a eu à faire des des def nañ ay ay ay ay ay jàngat yoo xamante ne si suñu école suñu classe yi jàngal nañ ci loo xam ni war nañu mën a permettre ñu ñu ñu def. épreuve ni ñu ko war a defee. canadien laa tudd maa ngi jógee Touba Gescap ñëw fii école privée Fallou Galass pour def si examen baccalauréat. examen yi sujet yi nan ah, am na yoo xam ne abordable woon na ku nekk jël nga bi nga xam ne moom nga yaakaar ni moom nga comprendre ñoo ngi ñaan aussi ñu am ci moyen bi nga xam ne moom lañ ciy xaar incha allah. bu njëkk bi mu ngi wax ci domaine 1 buy wax ci réflexion philosophique deuxième bi art troisième bi liberté moo nekkoon commentaire bi. bu dee di wax ci aar parce que moom moo gën a nekk à ma portée moo tax. yow boo gisee ci ci ah, ku nekk ak ni ko comprendre ah génne nañ ñi commentaire nee nañ am na ñu def hors sujet mais ñun gëm nañ li ñu def en on pense que ni moom mooy li baax. Ah. ñun moom li ñu li ñu jox ci épreuve yëpp jàngoon nañ ko alhamdulilah. contexte bi moom mi ngi fi depuis daaw kon yaakaar naa commencé nañ ci di adapté wu respecté nañ mesures barrières comme ni ngeen ko gisee ñëpp takk nañ seen ay masques et puis jël nañ disposition yi war yëpp daal pour pour mën ci prévenir. ren comme ni ko waxee nii ren ñaari jours dina am ah, nag mais on gère avec parce que tout se passe vraiment le plus normalement du monde. élèves yi dem nañ première épreuve jàll na ñu ngi xaar deuxième épreuve ngoon tout est calme y' pas d' incident des absents am na du ñàkk du par ci par là mais on gère quoi de toute façon daal ñun ñaan yàlla continuer ko rek jusqu'à la fin des épreuves quoi. amul benn manquant à part quelques absents des élèves mais séance bi mat na secrétariat bi mat na bon tout est là protocole sanitaire bi ñu doon wax aussi jëppam bi masque yeeg lave main yeeg tout tout vraiment. prions le bon Dieu daal parce que lépp daal baax na man affaire bi yàlla daal. déggoo dara xale yi di wax jàngat ci euh, sujet yi. sujet yi bon ñu ma jot a abordé man élèves yi est lan yeneen PC daal pour ñoom daal ça a été abordable ñu ngi naan yàlla yeneen épreuve bi ñëw mel ni moom. philo bi aussi nee daal xam nga rek philo moom da ngay wax c'est une un peu compliquée mais quand même daal il gère mais daal ñu leen si yaakaar nañ ne leen si mën a jënd di xaar nag di ñaan nag yeneen épreuve bi ñëwee yomb ah, ñu dugg ci rek macha jëm ca jàmm. participation ren. bon ren jigéen ñi ñu ci kii jot a am sat yi y a plus d'absents chez les garçons maanaam jigéen ñi absenté mooy mais bëriwul nag waaw quelques douze a onze filles bon garçons yi moom ay deux lay doon wala sur trois quoi jigéen ñi ñu absenté moo bëri boo ko boolee laax waaw ah, L prime L deux ak S2 donc boo xoolee taux de pourcentage vraiment am na au moins quatre-vingt-dix-neuf de participation. ça s'est bien passé depuis ce matin donc composé nañ filo bi pour serrer L yi L prime ak euh, L2 euh, S yi ñoom science physique lañ doon def mais dans l' ensemble tout bien déroulé amuñu benn incident majeur pour le moment. par rapport ak euh, nombre de candidats yi nga am fii. voilà pour les nombres de candidats donc on a 381 candidats répartis comme suit donc S2 yi cent lañ. L2I euh, 105 L' 60 65 donc L2I 106 plutôt muy 381 au total. épreuve yi 4 jours lay durer donc tey suba. Euh, samedi ensuite lundi donc dimanche bi dañ koy reposé wu léegi lundi la ñuy terminer incha allah. ndax am nañ fi ay absence yoo xamante ni noté nañ ko ay absence quelques élèves. waaw am na ay absence mais pour le moment xam na chef de centre bi moo yor statistique yi mais c'est sûr que dina am quelques absents mais xam naa du bari trop. Ah, par rapport ak contexte Covid 19 bi ñuy defee euh, baccalauréat bi ndax mesure barrière yi gis nga ne respecté nañ ko. waaw voilà da gis ngeen man maa ngi takk sama mask donc ñoo aussi ñi ngi veillé si loolu que candidat yi ak ak surveillant yi ak personnel bi fi nekk yëpp que ñoom ñi ngi takk seen masque. donc am nañu aussi ay lave mais am nañu aussi ay ay gel et cetera donc yaakaar naa dans l' ensemble mesures yi ñu ngi koy respecté même si c' est un peu difficile aussi. boo weesoo loolu jamonoy nawet gis nañ sànq mu taw. waaw loolu amul benn. waaw waaw waaw xawoon nañu tiit tuuti mais heureusement parce que fii moom defe naa. Euh, bu doon taw it defe naa duñu am problème parce que saal yi c'est c'est c'est yaakaar naa amul benn saal buy poser problème peut-être enceinte bi la lañ lañ mën a am problème mais sinon ça va